may féliciter nag le ministre Pape Malick Ndour je disais que c'est le Mbappé du gouvernement ah oui Pape est un garçon courageux courageux engagé moo tax bi ñuy wax CPI moom lañ def numéro un parce xam naa ne sax après moom mu ngi préparé mais parce que son courage nit day ñeme pété te Pape Malick dafa ñeme pété bi ñu am ay temps mais dañ doon dóorante moom itam mu ngi nii ah dañ doon dóorante de parfois mu yónni ñu ay missiles yu metti ñuy dégg missiles yi man muy man muy Aliou ñuy dégg missiles yi mais missiles yi ci politique la bopp tey ñun ñu ànd solidairement di défendre le président de la République et partout avec une loyauté sans borne lu ñuy def fii ci Kaffrine loolu la def ci Guinguinéo di ko def ci Sénégal yàlla dafa def li Aliou Sow doon mébét ci jeunesse bi nekkee ministre la jeunesse ci kii lay mottaliku parce que ñun bu ñu nekkee ministre de la jeunesse su Aliou Sow jiite ko bëggoon nañ def SEDEPS bu mag a mag bëggoon nañ def lu nga xam ni ci jeunesse kenn mënuñu si teg bët c'est vrai après Thierno Birahim ndaw celui qui a construit le plus ici man nag bëgg naa ko effacer après c'était Aliou Sow parce que li fi am tabax yëpp yu mag Aliou Aliou Aliou ko def mais nee naa ko dans deux ans c'est fini hein je mais Pape Malick Ndour mi moo ñu tabaxal ci ndigalu président de la république ci benn at ñeenti maison de la citoyenneté et de la jeunesse Malem Koungheul Mbirkilaan Kaffrine sont tous en travaux bu ci nekk c'est huit cent millions de francs fa am ay piscines bon xam naa ni ñoom Ablaye Wilane nga xam ni connaissent pas la connaissent pas loolu la am ñu ne la piscine fii dana xaw a jafe ci ñun mais loolu nag bu ñu amee ku mel noonu am nekk au service de la jeunesse ñun ñëpp dañ ko war a jàppale indil ko suñu expérience am na lu ñu xam jaar ci jeunesse ba àgg fii te moom itam mu am oyofu à chaque fois jàpp ci loolu moo tax monsieur le ministre Pape Malick Ndour je vous remercie je vous félicite pour votre courage votre détermination mais surtout votre loyauté à l'endroit du président de la République et de l'équipe gouvernementale